problème bu amee niñ koy jàppee uh-huh. mais problème bii nga xam ne xew na boo xoolee réew mi da cee wàcc wàcc wàcc wàcc ba mu ëpp sa à li ëpp lu nit ñi di waxtaanee tey uh-huh. mooy dossier bi te mérito wu ko woon maanaam dossier bi laaju ko woon uh-huh. amul valeur boobu euh, damay wax toujours ne euh, boo jëloon sa xale yi nga xam ne ñooy doog a dal jàng ci daara yi di jàng risaala wala ibnu ashir ak téere yooyu wala nga jël sax kuy jàng misbaahu saalik nga jox ko dossier viol ci lislaam mën nañ ko àtte du yàgg tribunal wallaay tellement que ni mu woyofee mhm. ni mu ñàkkee solo euh, dafa ëpp moo tax man dama naan réew mi ana borom xam-xam yi dégg nga ana borom xel yi ba ñu sàggan mhm. ba débat bi mëdd ñëpp loolu la ñuy wax dañuy jël borom xam-xam bu mag boo xam ne war naa wax lu jëriñ réew lu jëriñ Afrique bu ñëwee rek dañ koy dugal ci question boobu mu nekk ci di wax di wax di wax ba géex loolu jaaduwul loolu jaaduwul mm-hmm. parce que viol mm-hmm. da moo mooy li gën a neex a mm-hmm. parce que viol pour ñu àtte ko yii day taxaw ndax ndaw si am na gàjj-gàjj yu nekk ci yaramam yooyu mën nañ cee jàpp comme preuve ndax yuuxu na woy walloo loolu preuve la kaay leen xettali ma dégg nga wala ñëw fekk mm, nangam ak nangam yooyu bu amul rek. maanaam du tuddul viol maanaam loolu jarul may dem te ñëw jeex na nekkul nekkul mais ñun yi ñu jàng yëpp tey dañ koo jàng mm-hmm. daal di koy jël teg ko fële di jëfandikoo suñuy xel mbir yoo xamante ni ba nekk ci loolu ba ba ba bakkan yi tuuru fukki bakkan ak ñeent mais damay wax ne man su fekkoon man maay attekat yi nii balaa may woo di enquête viol am na ak amul te ñun xam nañ ne amul ñoom xam nañ ne amul kuy jëfandikoo euh, diine xam nga débat bi diine gis ñoom waa diine dañ cee noppi parce que xam nañ ne nekkul bu doon atte diine la yëf yi leer na bu yàgg lii nag comme atte tubaab nag dafa bëri ay camlangañ ak dugg fii génn fii mbiru nit la mbiru la ràbb la ak lu xel ràbb ak xel def na li def na li loolu la mais bu doon diine la débat bi jeex na buy yàgg kenn mënu fa tudde viol beneen bi foofa ku ku taxaw ne yow moo ko def yow la yow la yoon di topp. Mhm. waaw yow la yoon di topp dama dégg benn imaam di wax ne fekkeewuma affaire bi fekkeewuma la fa xew yàllaa ko xam. Mhm. ma ko ma ne ko lii nga wax diine waxula loolu de naan la fa xew fekkee woo yàllaa ko xam yàlla waxula loolu alquran daf la wax ne la mhm. bu nu ñëwee ne la ab jullit njaaloo na walla ab jullit siif na nit automatiquement da nga naan du dëgg. Ah, waaw automatiquement mooy du dëgg ba keroog ngay gis. luy wane ne dëgg la. voilà dangay ngay wedde ba keroog ngay gis. saxal waaw waaw nga loolu moom ñëpp ci bokk yem. Mm-hmm. mais malheureusement da ngay gis kuy wax ku ba wax a wax ba ba géex ne fekkeewu ma <laughs> la fa xew yàllaa ko xam. est-ce que loolu du li nga xamante ne moom moo di rajo yeeg télévision yi ak ñi nga xam ne dañuy analyse. Mm. ñoom ñoo yóbbaale ñu bëree bëri ci terme boobu nga xamante ne duñ ci seetlu lu bëri. parce que terme boobu aussi dafay tax nit ki gën a susceptible. gën di mm. eh, sikki sàkk ci ci ci waa léegi l'islam li muy bañ. Mm-hmm. mooy nga créer doute ci nit ki. xam nga boo ne la fa xew yàllaa ko xam. ñoom ñaar doo nga fa nekkoon. Hmm. mais yaa ngi yaa ngi indi dut ci waa ji. yaa ngi naan mën naa ne wala mëntu nekk loolu la lislaam di bañ hmm. lawla is sami'tumuhu dhanna hmm. al muminuuna wal muminaatu al muminuuna waaw bi ñu déggee ne viol am na wala ñu ne njaalo am na jullit yi dañuy wax ne jullit yu góor yi wal muminaatu ak jullit yu jigéen yi zanna al muminuuna wal muminaatu bi anfusihim xayran dañ ne la léegi waa ji jàppee ko sa bopp wallaay est-ce que yow di nga ko def mhm. bu fekkee yow doo ko def doo viole kon bu kenn dugal ci sa bopp ni kii dafa viole gis nga euh, suñ bi ñu tuumaalee sunu yaay Aïcha mhm. euh, soxna si Abu Ayyub al Ansari bi mu ñëwee wax xibaar bi Abu Ayyub al Ansari Abu Ayyuba daf ko posé benn question ne ko yow est-ce que li ñu tuumaale Aïcha yow di nga ko def mhm. mu ko mukk ci àddina mu ne ko ay Aïcha la gën. Ah waaw. Mm-hmm. moom moo la gën fuuf te yow moom yow mi ñu gën doo ko def kon moom mi la gën du ko def. loolu bokk na ci sababu tax ay yi wàcc. wa yaquluna hada buhtaan. Mm-hmm. maanaam waaw waaw xo buhtaan. Mm-hmm. mubiin. wala ifkum mubiin. ifkum mubiin. maanaam ay duur la. ay sos la. ay ay yu yu ñàkk solo la yu doyadi yu nit ñi créé indi ko fii nii. wax dëgg yàlla bu doon lislaam dong la du ñu yegg si fii waaw te lii defe naa ne amut benn imam ci senegal wala benn borom xam-xam bu jàng diine bu ciy werante foo penc xam-xam yi ci réew mi yëpp daara yëpp boo leen joxee question bi waxuma la ñi yegg ci niveau bu kawe bi mais ñiy doog a dal def ñetti at ci daara ji boo leen joxee question bi ñu atte ko du yegg tribunal ay aywa euh, oustaz Mouhamadou Amine ak euh, loolu nga wax yëpp nga xamante ne l'islam dafay saxal innocence su euh, jullit bi surtout ki nga xamante ne sax daanaka sikki sàkk ci moom doy na waar. Mm-hmm. bu ñu gisee ne dossier bi daf ñuy indi di ñu gën a pousse à que ñi nga xam ne dañu yaakaaroon ne seen kàddu ci wàllu diine ak responsabilité yi nga xam ne am nañ ko ci wàllu diine ak cër bi leen sénégalais yi jox ci mm. dëkk bi di leen jox ay seeni alal jox leen seen kàddu jox leen seen lépp. mais ba léegi euh, dossier bi ñoom ci wàllu diine dégguñu ci xëy na peut-être traitement yi mel noonu li ñuy wax mooy dossier bi nañ ko bàyyi ci loxol yoon. Hmm. léegi kàddu yoon boobu ñuy wax su fekkente ne dañoo dem ba nga xam ne yoon xëy na peut-être ñu bëri dañuy sikki sàkk naan ana yoon fu yoon nekk donc euh, naka lañ mën a jàngatee situation bu lëndam boobu ci xelu Sénégalais hmm. man damay faral di wax ne. Hmm. yoon su ñëpp d'accord ne daa maandu. nañu bàyyi yoon def liggéeyam parce que bu defee liggéeyam lu baax rek lay def. te ñëpp ciy ànd waaye yoon woo xam ne ñi baree baree baree bari jàpp nañ ne dafa jeng wala dañ koy manipuler kooku bu defee liggéeyam it defu fi dara loolu dossier bi tey foofu la toll. tey dama jàpp ne bokk na ci li ñu war a joyant mooy yoon ci réew mi. ñu defaat ko ba nga xam ne nit ñi dinañ am confiance. mu wér me ne tey jaaykatu euh, ki taxaw ci mbedd mi di jaay su amee problème ak ministre bi mbaa mu am problème ak député bi mbaa mu am problème ak doomu président de la république bu demee maandute la fay fekk mhm. mais tey su fekkee ne yow dala da ngay jàpp ne ñii dañ may xeex mhm. duñ ma jox sama cër parce que ànduma ak ñoom bu fekkee dem nañ ba loolu yaatu ci askan wi mhm. problème am na injustice injustice am na parce que euh, atte boo gisee yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mu ci wax mu wax ko ci dafa rëy mooy attekat yi ñett la attekat yi ñett lañu nee na ñaar yi tàbbi nañu safara ba pare waaw wallahi ci xadis saxiix ñaar ñi tàbbi nañu safara ba pare kenn dong ciy dem aljana ki xam dëgg di wax dëgg di àtte dëgg kook dongay tàbbi aljanna mais ki nga xam ne xam na dëgg ba pare te du àtte dëgg safaram pare na ki nga xam ne xamul dëgg àttewul dëgg safaram pare na